alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah yàlla di julli ci bi alayhi salaatu wasalaam buñ gër di gërëm suñ sëriñ Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass jëluma kàddu lu dul ma yëngal leen ma yee lu ma bëgg bu ma waxee li may wax nii ngeen répété ko wala boog ngeen àggale ko TLP bi wax leen bu baax dégguma dara TLP bi suñu yitte man nag jàpp ma ni suñu yitte la ba tey parce que bu dee suñu yitte la ak li ñu bàyyi defal ak li ñu bàyyi may bàyyi mooy ki nga xam ne dafa toj xol yi def ci laa ilaha illallah yemul foofu mu dajale la ak sa borom kañ moo mën loolu ñun bi ñuy invité waa pay bi lañu te ñoo fi ëpp naam am na ñeneen am naay ay soppee waaye ba léegi dafa des TLP bi suñu yitte nañ ko def yit nañ ko def yitte niñ koy defee yitte mooy bu kenn ñibbi ak li nga am bu kenn ñibbi ak li nga am su fekkee jege na nga dox bu fekkee gëm nga bàyyi boo demee ci mbedd mi boo ñibbi joxe nga li nga am boo doxee di nga am ku la yóbbaale bu dara dellu ci kër yi dinaa ci ñëw léegi Euh, fi may njëkkee mooy damay lim ñi joxe parce que Maolana Cheikh Ibrahim dafa wax ne ku la defar ki ki la ki def li ko war moo jar a gërëm ki def li ko war yaakaar naa loolu slogan boobu yéen dégg ngeen ko te yéen a ngi koy jëfee képp ku leen defal dara rek gërëm ngeen ko. li ñu amagum nag mën na taal télé bi li ñu amagum li ñu dajalee ko. mën na taal télé bi te incha allah dara du ko teree tàkk dina tàkk bu soobee yàlla fii ak ay fan. waaye problème bi mooy dañ ko bëgg a def comme Al suñ ko bëggee def comme Al nag il faut que ñu taxawal suñu bopp dëggal suñu bopp télé la boo xam ne transparence d'abord da ciy am yu bëri. day am ci pays bi duma ci nangoo bokk man ndax ñàkk transparence waaye comme lii dugg naa ci transparence lay am Amadou mu ngi ci biir transparence dina am mu dugg fi mu war a dugg dana fa dugg xam nga lan moo tax le choix sur Pape Malick dinaa ko leeral tey Pape Malick Ndour ministre la jeunesse damaa liggéey ak moom ci biir liggéey bi musuma liggéeyee ku jubee ni kii nim jubee lu wér laay wax du wax liñ seq ma dem ba ci biir gis ni taalibe Baay te xaw ma woon ni taalibe Baay ci début bi ñu amoon ay xëccoo parce que jeune la man la dafa tàng ma tàng waaye on s'est retrouvé ma liir ci moom bi ñuy nekk Prodac ku jub te lépp lu mu wax def ko maa ngi njëkkee ci moom joxe na 2 millions te xam naa dina ko teg sama loxo ma dugal ko ci kees beneen bi ci topp Cheikh Amadou Samb joxe na 2 millions 500 man 2 millions 500 Cheikh Ibrahima Ba Daarul Muhibbina 1 million Cheikh Ibrahima Ba xool lii rek. kii taalibe la te dafay dajale dafay fortaat lépp lu am bokk ko mbokk gi ak taalibe bi waaye bi mu déggee lii mu bàyyi lépp ñëw teew ànd ak ñun naam jotam mayu ko ko mu ñëw dajale li mu am yaram sax dafay daw jóge ba ngodi ba bisimilah ñu def cheikh cheikh Mamour Insa Diop yebale fi yebale na fi deux millions fa tabaarakallaahu jërëjëf Cheikh Mamour Insa ñu ngi koy teg réseau yëpp may dégg ñi nga xam ne ñu ci bitim réew ñu leen di tàllal loxo fexe leen génnee li ngeen am ngeen def ko ci télé pay bi bismillah riyaad daayira riyaadu saalihiin trois cent mille Massaer Touré quinze mille groupement daayira Rufisque Ansaru Diin cent cinquante mille commission féminine groupement départemental Dakar deux cent mille Assane Diop vingt mille professeur Oumar Absatou Niass cinq mille Adja Adama Sow dix mille Ansaarudin Jolofen Daayira Géejawaay trois cent mille Ansaarudin Senelec trois cent mille Baye Fodé Diouf cinq Cheikh Abdou Sané Gat cent cinquante mille Daïra Jàmmalaay cent cinquante mille Daïra Inafja Thiès cent cinquante mille Daïra Zawiya Zawiya Cheikh Ibrahim Niass Louga cent cinquante mille Adamali vingt mille sedda yaa day bàyyi bëgg bàyyi deux mille deux cent mille Alioune Diouf cinq mille Pape Moussa Faye cinq mille Mademba Lo cinquante mille Omar Kébé mille cinq cent Cheikh cinquante mille Fara Diaw dix mille Fatou Thiam quinze mille Diouf bëgg bàyyi cinq mille Omar Seck six mille bëgg bàyyi deux mille Seydina Alioune Seck sept mille Alioune Badara Cissé dix mille Modou Seck quinze mille Ibrahima Ba cinq mille Oumou Kalsoum Kébé dix mille Cheikh Abdourahmane Ndao deux millions cinq cent Seyda Mariam Kébé et famille cinq cent mille benn jaamu yàlla deux mille Coro Kayta 1000 francs Mouhamed Ndiaye 10000 Aliou Ndiaye 10000 Aliou Badara Diop 100000 Madame Thiam 10000 Abdoulaye Balde 1000 francs Cheikh Saïd Sall daayira Cheikh Saïd Sall 50000 Ibra Sané 10000 Barham Diouf 100000 Seyda Mbayang Diankha Mbayang Diankha cinquante mil benn jëlum un million moom ak Modou ku nekk jox na un million te xam naa ci sama kàddu lim naa ko ba mu leer te réseau yi ñu koy tas te Ousmane Sow dix mille donation addiya mooy yi doon jël noonu ci salle bi deux cent deux cent soixante dix cent vingt-cinq mooy mbuus mbuus yi ngeen doon dajale deux cent soixante-dix-neuf mille cent cinquante ministre Pape Malick Ndour deux millions compte Wave bi dugg na léegi gis nañ ci léegi huit cent soixante-huit mille cent trente Orange bi deux cent mille cinq cent trente-deux compte bancaire bi deux millions quatre cent dix mille moo ci dugg un million bi ku ñuy wax Cheikh Gueye presque ci salle bi moo ko dugal moo ko def vir virement dugg na c'est effectif Baynes garage cinq cent mille étude maître Ndiaye deux cent cinquante mille Aline Badara Aline Badara Ndiaye étude maître Ndiaye deux cent cinquante mille lii moo fi dugagum mu toll ci presque vingt deux millions et quelques wala vingt millions et li may wax foofu mooy bu doonoon cent francs sax xeebuñ ko yéebuñ ko waaye na am transparence rek loolu mooy li nga xam ne moom la Cheikh Amadou Samb wax léegi ah Cheikh Abdoulaye cent cinquante mille bindal ma ko xam nga ni lii de wax dëgg yàlla teranga la sëriñ bi alxalifa yebal ko yebal doomam ak rakkam cheikh mouhamadul mahdi ñu teew fii ibrahima sàll Codestria cent cinquante mille bindal leen ma dama bëgg un milliard xaaral xaaral xaaral def leen ma benn benn kan la ibrahima xalilullah Seck vingt mille francs benn jaamu yàlla macha allah fa tabaarakallaahu mille cent francs bind leen lépp lu dugg même bu dee dërëm nañ ko bind ana ñu ko jógal ci weer bi ñu dugal ko démb kon nag Dora Dia joxe na deux cent cinquante mille mu ngi ci weer mu ngi ci vingt cinq mille mu ngi bi daayira Diin cent cinquante mille jaamu yàlla bu jigéen bi cinq mille daayira Anwaaru Diin cent cinquante mille sëriñ bi noo tudd Cheikh Sidaati cinquante mille cinq mille francs Zakir macha allah ñun dañoo la waroon jox waaye Zakir Cheikh Sidaati cinq Zakir Samba Zakir alsan Khalifa dugal na cinquante mille fan ci wéef bi xoolal ma wéef bi dugalal nañ ma ci cinquante mille Baye Khalifa moo ko dugal Ousmane Niane Ansaroudine deux cent cinquante mille Ousmane Niane Ansaroudine cent cinquante mille bëgg bàyyi mille francs jërëjëf Mahi Diassé cinquante euros vingt euros Mahi Diassé vingt euros teel soxna si noo tudd sa yaay da ngeen di dolliwaat tabaarakallaahu macha allah nu ngeen tudd Kumba ak Soxna Jaw Kumba ak Soxna Jaw faama ñan bu maalaw kamara dix mille francs waa Alaaji Mod Zeynabu Thiam HLM trente mille Matar Thiam vingt mille ah soxna Aysatu sama soxna la bu xadisi la dix mille ah, joxeel ko yaayam Ayda Ayda ba Ansaaru diin départemental département Dakar dix mille xaar xaaral ma jël Fat Sow département Dakar 5000 tabaarakallaahu Ndiémi Koundoul 5000 Fama Dieng 5000 macha allah 5 ah Ibrahima Kouta 5000 Ibrahima Kouta jërëjëf 5000 Mouhamed Diop bëgg baay 5000 da leen ma bindal lépp Mouhamed Diop bëgg baay 5000 kat Moussa Thior bëgg baay 2000 taxaw fi Amidou Dia 5000 jërëjëf Amidou Dia. professeur Babacar Niang 10 000 ah Cheikh Ibrahim Faye Assadeh 5 000 xaaral xaaral Aliou Guèye 20 000 jërëjëf Aliou Guèye jërëjëf jërëjëf jërëjëf xool ba ma xool la ah soxna Khady Silla très bien kooku sama goro la soxna Sophie Camara soxna Khady Silla ku nekk 10 000 mère Ndiaye ñaata. cinq mille mère Ndiaye cinq mille am dugalal ko fii bismillah Adama Sow joxe woon na dix mille joxe waat na dix mille jërëjëf Adja Adama Sow benn dix mille bi pour moom la benn dix mille bi pour njaboot gi la Ndeye Mariam Seck président Ansaaru di dix mille léegi nag may leen ma ma ñëw ci waa Sénégal yi waaw lu tudd jox jox na tudd bëgg bàyyi bëgg bàyyi di cinq mille ay aja ay da cam tëggeej kii maa moom ñoo bokk dëkk tabaarakallaahu tëggeej trente mille dafa joxe na cinquante mille mu doon ci trente mille muy quatre vingt mille yéen moom nee na lu leen ma waaw taalibe cheikh ya eh, taalibe cheikh ci may ma ma ñëw côté bi Ousmane Sow Ngor Ousmane Sow Ngor set Ousmane Sow Sonko Ousmane Sonko. ah kooku day alors. man nag du ma politicien te te bu may jàppale te bu may jàppale Pape Malick Ndour laa jàppale man parce que taal bi baax na Sonko waxoo ma lu mu su ma demoon bay jàppale Pape Malick Ndour lay jàppale kii kan la cinq mille kan la ah Lamine Diop cinq mille Lamine Diop cinq mille Cheikh Niass mille francs Adama Ba mille francs daayira Ansaarud-Din Sandaga cinq cent mille pare bu ma nag daayira buñ paree rek dinañ julli daayira Ansaarud-Din Sandaga cinq cent mille moo Modou Kaaw Ndaw kooku de sama doomu baay Modou Kaaw ah waaye kii bu ma jurul woon dañuy ñibbi duñ yóbbaale dara Seynal bu Diouf 5000 yéen waa France yéen may dégg yéen waa France yéen may dégg ah. Babacar Tall 20000 ana jaamu yàlla bi ma jox mi 2000 bi kan la na yëkkati loxoom voilà jërëjëf Babacar. Daayira Ansaaru Diin Sandaga 500000 kaay bismillah. waaw léegi nag maa ngi ñëw ci waa Sénélec yi nag xanaa seen yaram dina daw man wàcc na waa daayira Sénélec bi hmm, hmm. waaw waaw président Mbacke Gaaj joxe ngeen lim naa ko fi ah, waaw waaw ñaata ngeen may dig hmm. Baye Niass Baye Niass lëndët Baye Niass Baye Niass 500 francs Baye Niass 500 waa léegi ça va bisimilah ah góor ñi waaw waaw waaw bàyyi ma wax ko ma dem ba bi ma wax di moom laay wax moom laay wax waaw Macky Sall 5000 Є, думаю. Так. Так. Mën na cay daan doomam deux mille trois mille sëriñ bi deux mille bisimilah. Guèye Nova Sadio cinq mille. Babacar Diop cinq mille. Babacar Diop cinq mille noo tudd. waaw kon jaamu yàlla bu baax. yàlla yàlla bu baax xoolal ma wéef bi ak orange money bi fan la toll léegi nag ma ñëwaat nekk ci table ji pour joxe ay information waa des na ba tey ah jim ñaan 1000 francs jim ñaan maa ngi dellu ci table bi joxe ay information kon nag alhamdulilah dinañ mën a taal télé bi ba ba loué ba loué appartement euh, immeuble buñ ko war a def Cheikhul Khayri bu Pape Malick Ndour 10 000 francs na Ngid Média Ngid Média 5000 Ngid Média 5000 Ngid Média 5000 damay joxe quelques informations nag doo ko dellu ci Modou Thiam Kër Baay Jëppal Modou Thiam Kër Baay Jëppal 5000 jox na ma 1000 francs tudd Aïcha ay saignant 1000 francs waaw kay léegi nag comme man mënuma show te itam du ma politicien xaaral ma ñëw ci dernier mot bi yéen waa Senelec ci la yéen laa jëm ci yéen waa Senelec ci yéen daayira Senelec bi laa jëm ak yéen daayira Sandaga bi may lim xëy na xel fattu na joxe ngeen trois cent mille wax ñëw Kumba Ndoffène Diouf journaliste dugal na ci web bi 10 000 jëlal ko 10 ci weer bi xool leen ko ba xam ba xam dugg na bu duggul ngeen woo ko waaw loolu dañ la rek waaw duggul kon baatare waaye place la boo xam ne dañ ci baatare dama koy seetaan ci télé bi de benn jaamu yàlla bu ñaata ji dix mille benn jaamu yàlla bu baax taalibe Baay dix mille joxe woon na vingt cinq mille delluwaat na vingt cinq mille yëpp soññ bi nag baax na ci noo tudd Maxtaar Baabu jërëjëf dugal na wéef cinq mille xoolal bi dugal na wéef cinq mille noo tudd Abdou Faye wéef cinq mille Mamour Faye Amadou Faye Baye Baye Ndiol Baye Ndiol Baye Ndaw ak Baye Baye Ndiol Baye Baye Ndaw ak Baye Ndiol yi bëri na Baye hmm? loolu la yàlla loolu lañ bëggoon mu bëri ay Baye man sax am naa am naa Baye kër ga sant yàlla loolu hmm? Moussa Ahmed Thiam Koungheul Oustaz Ahmed Thiam Koungheul 5000 Oustaz Ahmed Thiam Koungheul 5000 bu dara rëcc. ñu bind yëpp waaw maa ngi ñëw ci information bii nag bi may tëjee bu ci njëkk mooy euh, levée de fonds bi tëjuwul mu ngi tuj tijjeeku ba pare jour bii mooy premier jour waxuñu ne fii la yem yéen yi nga xam ne yéen ngi déglu te may dégg képp ku mën a continuer ci compte bancaire bi RIB bi joxe nañ ko ak IBAN bi en Europe ak fu mu mënti nekk diaspora bi képp koo xam ne Wave nga am te yéene ko Medina Baye TV ñu lay woo nga dugal ko ci Wave bi ñu lay woo aussi nga dugal ko ci euh, Orange Money bi kon nag tey premier jour la boo xam ne moom moo démarré levée de fonds bi euh, di ngeen gis bi ak fan yu néew Medina Baye TV nekk phase test di dugal ay gàmmu di dugal ay ay ay di rakka di dugal ay gàmmu yu ñu mës a gis dinaa information benn deuxième information bi mooy waa TFM ñu ngi leen di gërëm loolu moom buñ ko deful sama def ko reddition des comptes bi damay fàttali Amadou Samb wax na ko dañuy créer benn site internet boo xam ne cent francs yi dugg sax da ciy nekk ku bëgg a consulter fu xaalis bi toll ak liñ jënd te lépp luñ jënd dafay am ay facture li waral loolu ñun dañoo am njaboot te bëgguñu ëllëg ñu romb ñu naan ñii nangam xaalisu télé te loolu moom la ñuy bañ looloo tax transparence dina ci am képp ku ñu mën a continuer di ñu jàppale mu lay woo pour nga def beneen information bi nag mooy avant may dugg ci bu bu mujj bi mooy daayira Sénégal ngeen baal ma yéen waa euh, Sandaga bi da di yokk trois cent mille yi la rafet na joxe ngeen ko leen ci gërëm bu baax a baax a baax a baax waaye nag foog ngeen yokk d'accord ngeen voilà man xam naa leen yéen a courant bi yéen fii yéen ko leeral leeral leen télé bi macha allah kon di ngeen yokk kon Kébé soxna si Adja Kébé jërëjëf voilà léegi beneen bi mooy seen patron Pape Demba Bitèye jokkoo nañu moom normalement panéliste la woon ma nga ba Saudia dinañu recevoir ñun comité d'organisation bi bu ñëwee xamal nañu ne alhamdulilahi rabbil alamin bu ñëwee télé bi tàkk kon tàccu leen loolu te ñu ñaanal ko yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah sëriñ bi waaw garab dañ koy gisal sa intervention am na solo kon nag euh, ñu ngi euh, àgg ci fin wu jotaay bi.